sont partout dans le monde ils sont te gis nga finance bi nga wax foofu la ñuy jaar xale yi parce que Cheikh Hamidou Kane dafa wax mu ne la misère est le plus grand ennemi de Dieu te tubaab bi loolu ba ñu ko comprendre dafa yàgg comme li nga wax rek dañ lay xiifal mm-hmm. nit su xiifee amatul ay valeur ñu ñëw détruire valeurs yi combat école bi loolu je crois que am na ñu mat ci école yi parce que tey waxtaan nañ ci salle de prof je crois que nit ñi dinañ ci wax. mais gis nga nee ne dafa am ma def benn digression rek comme man élève Mamou Sela xam nga dañuy wax góor jigéen. man tey daam dama bëgg ñu def benn seetlu rek ci benn góor bu dóor jigéen. je vous parle de l'histoire qui se passe à Kébémer. Mm-hmm. je crois que tu au courant. oui benn élève. moo fekk pro philosophie bu jigéen mu taxaw mu xoj ko ba pour ñu dindi ko élève bi dañu mujj màtt élève bi avant loolu une semaine avant madame Ly qui est dans la même école a été séquestrée par des élèves j'ai parlé avec le proviseur j'ai parlé avec les IA j'ai parlé avec la dame j'ai parlé avec le comité de crise ñoom Ndiaye ñoom ñëpp waxtaan naa ñoom qu'est-ce qui se depuis trois jours Kébémer jànguñ vendredi décrété nañ grève total élèves bu yi génn nañ def seen soutien ne bu ñu dàqee seen élèves ñoom ñu taal Louga voilà un conflit élève bi c'était le 10 mai mu xoj xale bu jigéen bi man j'ai tous les documents qui son la envoyés bi mu ko xojee elle s'appelle madame Diallo elle est notre collègue professeur de philosophie à Kébémer ñu dem conseil de discipline ñu dàq ko sept jours xoj sa professeur bu jigéen tentative de meurtre parce que daf ko doon rey la proviseur on s'est parlé au téléphone mu wax ne ñu jël xale bi yóbbu ko hôpital xale bu góor bi ci psychologue mu seet ko waxu leen ne dafa dof mais nee na leen il a de sérieux problèmes mais léegi un élève qui a de sérieux problèmes tu le laisses revenir en classe wow. hmm. les enseignants ont demandé une seule chose que cet élève la qu'il lekkool l'école mais prof bi lu mu ko def bu mu xoj li mu ko def non loolu c'est waaw mun naa ko ko expliquer sax c'est-à-dire que ak ak ak lu mu ko munti woon def su ko fekkoon mu toog sax mu mbéj ko warul réagir noonu mais xam nga lum mu ko luñ jotee mhm. ci man liñ ma nettali envoyé ma ko kiñ ko def wax ma ko ñoom ñëpp ñu wax ma ko reconnaître ko tarde na xale bu góor bi te nee nañ gis nañ ko pendant longtemps élève bi muy traîner ci école bi mhm. mu ñëw dugg si fëgg ak tànkam dugg daam bi ne ko ou c'est toi qui sors ou c'est moi qui sors ko génnuma xaa daam bi sëgg di defar ay bagaasam mu xoj ko buñ intervenir woon tey néew moo fi am élèves yi taxaw ne ñoom tamit dañuy def loolu donc man damay interpeller ñaari nit ñetti nit d'abord les professeurs de philosophie parce que ci groupe yi ñu ngi ciy wax yu bëri ku nekk di réciter say Machiavel ku nekk di réciter say Jean-Paul Sartre ku nekk di réciter say Elimane Kane c'est très bien mais il faut que les gens fassent des actes il faut qu'ils se mobilisent pour être derrière cette dame qui te ne Kébémer à Dakar avec sa famille parce que élève bu góor bu la xoj doo fa toog ak moom beneen bi mooy les syndicats j'en ai discuté aujourd'hui avec des membres de mon vous vous êtes syndicaliste ça ce sont parce que loolu dal ko mu nekk jigéen mën na dal lu ne parce que la violence aujourd'hui elle est présente à l'école par la langage et par les actes te gis naa ci WhatsApp yi par ironie ñu dugal ay prof <laughs> kenn ki mi ngi sol kumino di jàngale kenn ki mi ngi takk jaaseem kenn ki xawma kuru baay faalam la yor mais bu ñu demee ba toll foofu noonu lu damay fàttali la waajo doon waxoon daf ne c'est parce que il y a la violence à l'université qu'on ne pense pas ma ko déedéet c'est parce que on a arrêté de penser que la violence s'est instaurée jàngalekat warul juutal ay logique donc man li ma leen di mën a wax mooy faisons bloc te nañu ko xeex cet élève la il n'est plus raison muy dem proviseur bi nee na moom munu ko dàq mais mm-hmm. bi ñu waxtaanee ak ñeneen yi nee nañ mun nañ def proposition ñu dàq ko définitivement mais c'est que ñoom seen conseil de discipline deful proposition ci document yi ñu envoyé pour ñu dàq ko définitivement qu'est-ce qu'on attend est-ce que ça doit être un débat prof bi élève bu góor fekk magum jëmm di ko jàngal philosophie mu xoj ko on se pose la question est-ce que cet élève là doit rester xam nga lu muy indi xam nga daam lu muy indi gis nga damay wax ma ne soldats yi dañuy wax ne on nous mais on ne nous déshonore pas mais xam nga ñun enseignants yi lan mooy suñu devise on nous déshonore mais on ne nous tue et tant qu'on n'est pas unis parce que combien de fois on nous a déshonorés sur le plan financier même tuuti rek ma ñëw sur le plan intellectuel sur le plan social sur le plan du comportement sur le plan du respect sur le plan de la pensée sur le plan de la pédagogie de tey booyu LPA 13 yi ñoo ñëw génne ñu ne ñun du ñu jàng parce que LPA 13 depuis 2018 seen prof dañuy wër di dox ay deux kilomètres pour jàng parce que mënuñoo am école ñu jël marché yi LPA 13 jox ay nit ñoo xam ne mënuñu koo defar ils sont en grève tout ça tombe dans lécole école pourquoi or l' école devrait être au centre de la vie mënuñoo toog ci benn àddina boo xam ne dañuy wax naan tout se repose sur l' et on fait de l'éducation le parent pauvre donc gars yi mobilisez-vous élèves boobu nañu ko dàq au niveau de Kébémer sinon ces enseignants là qu'ils continuent leur grève. lu la doon applaudir mais bon lu ndaw bu ko applaudir def erreur parce que euh, je serais pas d'accord avec professeur. xam nga maa ngi koy wax léegi école dafa nekk instance de socialisation de l'individu. Mhm. bu nekkee xale boobu dafa def li warul bu ñu ko génnee ci mbedd bi dafay defi ji pire. Mhm. parce que xale bi aussi bu ñu ko génnee ci école bi mu dem. parce que dafa violent ci école bi buñ ko bàyyee dañuy bàyyi ji benn agresseur boo xamante ne en devenir lay doon. Mhm. donc je crois que ni war nañu mën a xool na nañuy fexe ba xale boobu ñu gën ko encadrer. Euh, école bi. en collaboration ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, sa famille mm-hmm. jéem a xool nan nañuy delluwaat xale bi balaa ñu koy jeté parce que bu ñu ko joxul seconde chance bu ñu ko bàyyee mu dem ci mbedd bi boo moytu li développé ci moom mooy ressentiment il a boobu nag bu développé ci moom boo moytu wax ma la enseignante boobu mu poñe woon rek mais bu gisee enseignant sax haine lay am ci moom parce que enseignant ñoom ñoo yàq sama jàng je crois que ni am na xale yu bëri tey jii xuloog seen prof xeex seen prof ñoo tax ñu dàq leen tey ñi ngi ci mbedd mi di taxawaalu te bu doon man daal je crois pour plus de pédagogie wax nañ leen mën a accorder seconde chance et puis ñu jàppale leen. non non non non non leerul ci moom xaaral ma repréciser sama pensée une minute waxuma ñu bàyyi ko ci mbedd mi. nit enseignant mënul wax ñu bàyyi ko ci mbedd mi loolu du wax. afa am ay psychologue conseiller am na ay assistant sociaux. mais je di au niveau de l'école munatul nekk eh, une possibilité ñuy bàyyi xale boobu muy ñëw toog di jàkkaarloo woon ak daam boobu nañ ko retirer du système bu fekkee dafa am ay problème parce que loolu lañ def ci certificat médical bi lu mm-hmm. joxe Louga ñu topp ko régler ko mais waxuñ ko ñu bàyyi ko parce que nit mënuñ koo bàyyi ci mbedd waaw maa ngi ñëw ci yow daam c'est important benn confidence bu ndaw rek 30 secondes euh, sànq école lañ ubbee ñu yegg man mën naa fièrement naa ci échec scolaire jàng naa dem naa lycée Limaamu Laay bàyyi naa jàng sama bàyyi ak muy dégg la bàyyi naa jàng ñetti at nekk ci mbenn su ma amul woon seconde chance bu ma delluwaat du ma am bac ba lay dem université bi ma demee université fac droit toog naa gisuma sam bopp ci système u jàngale bi bàyyi naa dem naa jaay essence nekk naa su leneen ba ma demee ba toll feneen ma amaat une seconde mais amaat une seconde chance dem jàngiwaat parce que bu fekkee école bi ñëpp ko seq école bi nekkul lu ñu greffé école bi kër gi la société bi la nit ñi la parents yi la ñëpp la li may wax nii ka ma doon jàngal madame Oum Ndaw mu ngi may dégg ka ma yoroon primaire madame Fanta mu ngi may dégg mais ñun ñii ñëpp dañu am ay parents yoo xamante ni ñooñu doon tey man mi bi may nekk xale terrible na am na année boo xam ne sama directeur école yàlla na ko yàlla may gudd fa moo ma doon téye. pour dire ma nekkul ci classe bi moo may woo. pour dire quoi pour jàngal ba pour te dire que. Mhm. école bi moo war a defar. d'accord mais Pape Matar a parfaitement raison beneen bu ñu joxul gëdd professeur bi parce que léegi ñun dóor nañu tàndar nañ ñu par quatre umma joodoloo nañu mais léegi da ngay gis ko xam ni sa doom dem na si école bi bu ñu ko dóoree sax nga commencé génnee beneen façon parce que ñun bu ñu jubbantiwul woon wala tàndaruñu par quatre tey duñu mën a yaru mais bu fekkee néewal nañ doole professeur bi état bi bu corona amee mu dugal leen ci kaaru Njaga Njaay fonk ñu jàngalekat bi fayuñu ko liñ ko war a far. alors oui noonu la mën a mel. aussi ñu ñu kii parce que ñu dugg ci suñu deuxième sujet. mais tamit enseignants yi jàngalekat yi nañu am fulla devant les élèves surtout avec les femmes. parce que da ngay am ay jàngalekat yoo xamante ne parfois nit ñi nekkee xale yu jigéen ñi dañ leen di yeb. dafa am loolu c'est-à-dire que un enseignant boo ko daan gis mu taxaw da ngay xam ne kii enseignant la daam. mais léegi da ngay gis léegi école yi tu vas dans les lycées mm. ou à l'université tu vois chaque fois les professeurs avec les filles ñëw taxaw di am ak ñoom yenn comportement yoo xamante ni autant amul woon. boo da ngay daan jógee si maître da daw wala nga jëm jàngal da ñëw. mais léegi ñoom ñoo topp xale yi ñooy ànd ak ñoom bu fële daw di da dawante ñoom di leen joxe ay rendez-vous di leen jox fële. loolu est-ce yi dina respecté. di jëlante seen biir. nañu waxante dëgg loolu moo am. loolu moo tax bu ñuy wax ci formation enseignant yi. ñoom daam di ko wax euh, professeur di ko wax war nañu aussi enseignants yi aussi ñu revoir ak un peu ñenn si loolu pas pas pas tout monde mais ñu ñenn nañu aussi ñu xalaat seen comportement parce que yu tey tey tey enseignants yi am ni tey xale yi nii xale yi nii waxuma sax parce que ñii seen formation xam nga ne am na loo xamante bañkat la ñu woon on oh, tu tu peux voir dame professeur nga xam ne kii il te donne l'image de ton professeur ou ton enseignant léegi duggante bi ni ñuy rokkalante entre xale yi yaa ngi dégg enseignants yi loolu aussi war nañu xool nan lañ koy multiplier seen faire formation ñu leen koy xamal ñu xam nan la war a comporter surtout devant les filles. Ah, alors ñenn de lañ ko def mais enseignement vocation. rebondir déjà ci lii parce que euh, il faut également nga waxu communiquer bu ADS parce que dañ leen traité quand même de euh, radical euh, radicalisé islamiste loolu lañ leen wax ba tudd ci sax. suñu xalif général des Tijanes mu nekkoon quand loo xamante ne metti na peut-être euh, la plupart des des loolu aussi di nga ci di nga ci wax laata ñuy jàll ci suñu beneen beneen beneen kii mu di économie rapidement mhm. euh, am na ay précision quand même war a def parce que Omar la ngay wax mënoo génn mbir mi ci contexte mhm. parce que am na sànq parce que contexte c'est important société mënul di soppeeku ngay wax ni école bi du bokk ci liy soppeeku. c'est-à-dire que ñu sénégalais bëri dañuy juum. non may ma rek ma ñëw may ma rek ma ñëw waaw may ma rek ma ñëw c'est-à-dire l'école n'est pas un maillon isolé de la société. absolument. on parle de l'école de la communauté. maanaam ni askan wi di soppi ko noonu la lépp di soppi ko même dayoo lu ci nekk dañ ko ko daan joxe ci lépp du rek jàngale lépp moo commencé màbb parce que askan mooy soppeeku te ñaguñu askan wi pour mën a loolu ñu amoon ñu continuer ci loolu moo tax yow li ngay wax mu am mais jàngalekat yi li ñu li li ñuy def su fekkoonte ne ñag nañ école bi kon loolu ngay wax du mun a nekk mhm. parce que tey jii boo jëlee école élémentaire sànq euh, euh, kii mu ngi koy wax euh, Cheikh Omar ñoom dañ daan duma xale yi pas gaañ leen le châtiment corporel ñi ko diaboliser mooy ñii tey jii nekk ay ngóor jigéen maanaam temps la mais wala ñëw ab karawaas boo xam ne maître bi da koy xuuxale xale yi pour ñu jàng ñun ñëpp ñu jaar ci te mosuñ ñoo rey ñun ñëpp ñu daan ci jàng ragal ba boo gisee sa maître sama deux daw wala sa maître sama un daw loolu lépp ñu dindi ko ne léegi ku mu duma sama doom dama lay fekk duma la fa te askan wi soppeeku na d'abord mm. bu njëkk pénc mi mooy yar ñëpp ku toog ci digg pénc ma gis sa doomi morom sanu si mii gis doomu Pape Matar def lu dul yoon mu duma ko te bu Pape Matar ñëwee ne ko danga ngaa waroon dool léegi bu dumaa doomu Pape Matar Pape Matar euh, doom ji nañ dem police ma porté plainte ah, kon askan woowu bu soppi ko nga bëgg yow jàngalekat bi nekk ca loola te du soppeeku kon yow da ngay génn ci contexte kon mënoo génn soppiku bi ci contexte bi donc loolu moo tax c'est important ñu leeral sunu askan wii jafe-jafe yi ñu fi wax yépp jàngalekat la na jéem nañ ko mais tey jii conseil de gestion yi comme ni nga ko waxee buñ ne mënuñu dàq lu ëpp huit jours mais texte yooyu dañ ko war a xoolaat parce que bañ koy wax booba xale daa respecté woon trop magam respecté woon kilifaam lépp soppeekoon lii daawul am kon bu liy amee lu tax mun ñoo réformer les textes pour que conseil de gestion jox leen plus de pouvoir actuellement loolu bokk na ci réforme yi nu war a àndi te ministre Mamadou Talla xam na ko te defu ko ñu doon xaar également ci réforme yi ñu xool nu ñuy ñoŋale alal di dugg ci école bi nga xam ne lu ci bëri day dem ci corruption nga xam ne ku ci ne xam na ne ñuy dégg ay détournement ci école yi di déglu ay détournement ci ministère au niveau central comme au niveau déconcentré waaw loolu lu tax réforme mënta am ci loolu moo tax ma lay wan la coppite yi ñu a def xëy a dugg ci détail yëpp a am ay coppite yuy tax loolu ngay wax mën nekk mais loolu suñ ko deful loolu du mën a ne beneen mooy jàngalekat yooyu nga doon wax bu njëkk daawuñu toog 10 ans duñ jot seen rappel voilà daawuñu toog 10 ans duñ jot seen axe d'avancement jàngalekat yooyu leen a xam ne ñoom ñii lu ñuy def ci askan dañ leen di woo parce que ñoom ñooy ñi nga xam ñooy xalaatal askan wi léegi nag ñoom ñooñu formation bañ daan am dañ daan doon quatre ans ñu leen di former mhm. daan leen former deux ans bu dee ci moyen secondaire bi léegi ñuy toog naan dégg nga ñii ñuy jël ni lu ñu wax quatre mois lañ leen di former mu wan la ne ay tappale moo yàq njàng mi kon nag jàngalekat yi ñoom yoruñu seen cëggal guy buñ bëggee sopp mbir mi te yoruñu système ci génn kon nag man jàpp naa ne ku jiñ yi leen da ngaa xamul li ci sànkar si ci biir njàng maintenant léegi ñëw nag te loolu fa muy tëjee mooy bu ñu bëggee nag aar sunu école aar sunu askan mooy li nga xam ne moom mooy mooy ñoŋal sunuy xale parce que ñëpp tiit nañ ëllëg am doom ju nekk dama am sama xarit boo xam ma nga Canada tey daf ma wow ne ma léegi Canada ku fi am doom xam nga ñun fii ku daan am euh, as coro da nga koy nëbb say waajur parce que da nga naan boo ko waxee tey ñu rey la boo demee ba toll di wut ay coro di coro di di jéemu euh, mag maglu mais nee na fee léegi xale yi ku ci am doom bu ji nee na ñun ñun fii fii ñu nekk ci Canada ku fi am doom ju góor wala doom jigéen bu dee jigéen daa ñëw présenté la faram muy euh, muy góor mu nekk jigéen nee na da nga naan alhamdulilah <laughs> kon nekkul góor jigéen nee na boo amee doom ju góor it mu présenté la léegi la ma ko wax avant ñëw ci émission mu ne boo amee doom ju ju mu ñëw ne la lu mu nekk ndaw ndaw nee na bu ñëwee présenté la jigéen ni la mooy mooy mooy as corom nee na da ngay tëj sa néeg alhamdulilah nekkul góor jigéen <laughs> waaw léegi nag ñun ñooñu loolu ñu am ci seen réew mi lañ bëgg mu ak Sénégal alors que ñun loolu du suñu réalité léegi nag loolu pour ñu ñoŋal ko xam luy wax ji mooy dañoo war a aar suñuy doom ñag dañ koy dañ koy dañ koy ñagaat ñag bi nag lañ bàyyi mu yaraax ba ku jóg tëb ñag bi ñag boobu pour ñu man koo ñagaat pour mu dëgëraat dañuy dugal njàngum diine ci biir njàng mi te tege nee laïcité à la française bi comme ni ko euh, le grand économiste waxee effectivement la laïcité à la française mooy athéisme mooy bu kenn gëm dara république nañ ko tàqale ak diine alors que ñun dañoo am suñuy ngëm-ngëm nekk ay musulman ak ay chrétien chrétiens yi nañ dugal catéchèse musulman yi nañ dugal alxuraan ci biir njàngum école publique bi nanguwuñ ko def di tappale te bu ñu defoon loolu dana njëkk ci suñuy gone te alxuraan xale bi may ma ma daaneel may ma ma daaneel alxuraan xoolal may ma may ma ma daaneel daam xoolal parfois dañ lay may da ngay maye tuuti rek ma wax la dama la am dama am lu ma lay yokkal tuuti rek c'est-à-dire que foofu foofu dafa am lu ma la si yokkal li nga wax rek ci problème mu valeur yi ak ñun parce que tu parlais tout à l'heure de la lettre de Michael man lire naa ko intégralement mais xam nga wax na ci ñaari chapitre yoo xam ne rek suñ ko liiroon duñ ko jox benn doomu aadama mu liir ko parce que premier chapitre bi bi muy présenté yaayam lan mooy góor jigéen daf na ko ñun dañoo doon yoo xam ne des mots comme la famille la décence et le christianisme sonaluñu donc ñun ay jur doom ay am ay doom wala ay mbaax ay jom sonaluñu te ñun loolu moo ñu sonal wala boog ñun loolu moo ñu protégé beneen bi mu ne ko ñun pour ñun góor jigéen ñi la mesure de la valeur d'un individu n'est pas liée à la sexualité les homosexuels son des gens qui jouissent de leur corps que les que Dieu leur a donné loolu d'accord naa ci mais ñun yàlla ba mu ñu joxee yaram jox ñu plaisir dafa am nu ñu waxee ne noonu lañ ko war a defee te kii wax na ko léegi ku ko respecté wul aussi il faut voir le rapport qu'il y a entre sida et homosexuel mm. la plus grande part des sidéens étaient des homosexuels et ci ay prison homosexuelle la jógee loolu lañ ko fi nekk góor may ma rek parce que euh, ci wax mais li ma bëgg wax ni sunu xale yi bu bu ñu demee ba leen di jàngal alxuraan ci biir école publique bi njëkk ci ñoom li ñuy tit ci askan yëpp dootul am parce que alxuraan dafa matale léegi nag mag ñi loolu lañ ñu jàngal école France bii nga xam ne c'est une école maçonnique école euh, de Jules Ferry ñu imposé ñu ko ragal loo ñu diine ne alxuraan bu ko kenn boole ci école bi ni chrétiens yi catéchèse bu ko kenn jàngale ci école bi yëfu tàppale yooyu la ñu a ba jàngal suñuy xale seen diine bu ko defee bu ëllëgee ñu xam ne ñun ñii njëkk nañ ci ñun te bu ëllëgee dañuy rendre compte xale yi màggale loolu ñu ja wan leen jaar-jaar yoon bi ñu ñu jàngal ko li suñu mag ñu baax ñi bind jàngal leen xale yooyu bu ñu màggee góor jigéen du man ci ñoom dara loolu mooy ñeg bi xoolal ñeg suñuy xale gis nga buñ fi nekkee di wax te ñaguñu suñuy xale tamit yëf yi du sotti xale yi bu ñu màggee këf leen day yomb mais xale boo xam si alxuraan ci li ma miin man njëkk na ci dënnam hmm. ñu jàngal ko li mu war a def jàngal koy valeuram bu màggee ku naan ko hmm. góor bala ngaa yeggale moom mbéj la parce que dana xam ne kii caaxaankat la kon nag bu dee ñag-ñag bi nañ xoolaat ni ñuy tàggate ci communiqué bi daal école bi nga xam ne moom la ñu war a tàggate sénégalais mais école bii muy wax nii mais école bii moom école bi mënta tàggat xale yoo xam ne dana bëri na ay dérive euh, sànq li ngay wax noonu xam nga bu ñu la nuyee par exemple ci deux mille vingt bi gis naa benn rapport bi wax ci mille soixante quinze grossesse ci milieu scolaire dafay poser problème parce que école bi bon nekkatul li nga xamante ne moo moom nañ doon doy école donc effectivement man je suis parfaitement ak yow daam il faut ñu jéem a réformer waat école bi mais ñu tabax ko suñu ay culture am na benn am na ku doon wax li au Sénégal on a une école moom mais on n'a ba une école sénégalaise c'est une école française enseignée au Sénégal war nañu mën a am na au Sénégal une mhm. école sénégalaise très bien mais école boo xamante ne xale dañ fay dem pour biir alors rapidement sur le waaw léegi nag maintenant pour euh, dossier boobu nga wax laata ñuy dem ci avion de commandement mhm. adéos ci ñu ni seetaan mhm. xaw ma ndax am ngeen texte pour woon ko sénégalais yi ci écran effectivement mooy association des homosexuels pour la défense de l'orientation sexuelle maanaam ñi nga xam ne France lan nekk di defendre seen bopp pour ku nekk am droit def loola neex neex nekk góor jigéen waaw léegi nag euh, ñun jàpp nañ ni fii am nañ fii représentant ak traducteur parce que man dama jàpp ne texte bi ne association day en tant que prof de te ñi may nañ xool texte bi nga xam moom la ADECOS envoyé man jàpp naa ne amul authenticité man gëm naa ni ñi ko bind moo tax dañ doon juum ci yu bëri Euh, du ci contexte boo xam dañ koo bind pour man yónnee leen ko ñu signé ko. Hmm. ki koy bind fii lay nekk parce que man loolu laa gëm boo xoolee texte bi da ngay sentir niveau de langue bi nu yore amul benn authenticité da xam ne kii du ab français. de maam Sidi bu fekkee mën nañu am texte bi. texte bi boo ko bind gisee da ngay gis ne am na ku ko bind nekk fii góor jigéen ay euh, jiite góor jigéenu Sénégal yónnee leen ko ñoom. ñu daa di koy signé daam del wax ñaari pour euh, mu leer non ñaari tour leerul maanaam góor jigéen rek nañu wax góor jigéen parce xam léegi léegi nag ñoom ñoonu ñoo defar seenub liste ci arrogance bu metti ñu lim ci sunu sang yu tedd yi lim ci euh, sëñ mbay Sy Mansour nga xam ne ku ko xam ci ak baax ci ko xam ci defar d'abord may njëkk a dénoncer liñ tentative bi ñu def pour diviser parce que bu ñu jël limee yenn xalif yi parce que du moom rek lañ lim dañ ko lim lim également la xalif général des xaadres lim également euh, euh, la xalif général de Euh, de de Ndiassane léegi ñoom ñoo ñu lim bàyyi yeneen xalif généraux yi xam lu ñu ci jublu mooy féewale ñu pour que ñu wane ni Sénégal du ñëpp a d'accord parce que ñaari communiqué la. communiqué boo xam avant manifestation bi la c'était pour mettre la pression sur Macky Sall pour mu interdire manifestation bi mais man bañ ko waxee nee naa leen ñi euh, manifestation bi kenn ñemoo ko interdire mais loolu lañ ca bëggoon ñoom parce que nee nañ ca première déclaration ba nar ta jur jàmm seen rassemblement bi loolu lañ bind ñoom. ñoom waa ADEOS beneen bi mooy deuxième euh, kii bi ñun nag ci lañ ñëwee nag daal di ŋàññ suñuy kilifa diine boole ci nag suñuy imaam boole ci ay euh, responsable de la société civile euh, ku ci mel ni mon ami Clédor Sène ñun société civile ñun lañ cité Abdou Karim Gueye Clédor Sène Dame Mbodj Assane Diouf ñun ñun lañ cité cité également ay imaam comme ñu mel ne ñoom imaam Dame Ndiaye cité nag ki nga xam ne moom moo ñuy jiite muy Ababacar Mboup nga xam ne moom mooy président ànd sàmm jikko yi moom mooy euh, coordonnateur du collectif ànd sàmm ko yi comme ni ma la wax nga xam ne mat na juróom fukki association yu teg waaw léegi ñun bala ñoo wax leen ñun suñuy xalif généraux duñ seen moroom ñun du ñu may kenn muy xotti war ma su suñuy xalif généraux te lool mérité woon na état Sénégal def une déclaration dans ce sens pour arrêter ces gens ak ñi leen gemb parce que ñoom seen mise de l'intérieur lañ bind moo tax man ma ne ci biir ànd sàmm jikko yi ma ne président kër Mboup man li ma gëm mooy ñu ne danoo war a bind suñu liste bind ci góor jigéen yi nga xam ñoo ne France ak franc maçon yi ne France jiital ci président Macron ñu leen jiite wax ni bu ñu duggati sunu Sénégal gii ba noo bind sunu ministre de l' intérieur pour la leur appliquer la réciprocité maanaam duñ ko def de parce que man gëm naa ne ñemewuñoo sax xalaat jëm boor boobu mais pour leur appliquer la réciprocité moo tax tey gisoo Sénégal dañoo kañ Paul Kagame bi muy recevoir Macron yónnee ko ab ministre. ministre la ko yónnee ko à l' aéroport. yónnee ko ab ministre mu accueillir ko à l' aéroport moom mu toog ca palais ba xaar ko xamul tax parce que dafa dem matagul deux semaines mu accueillir ko ca pale ba yónnee ab ministre mu recevoir ko appliquer la ko defal la réciprocité pour dëggal boppam man nag maa ngi rêvé Sénégal am président bu mel noonu président boo xam ne day won yeneen président yi nga xam si Europe lañu nekk ni man maay seen naataangoo fii su ngeen fi ñëwee na ngeen may traité laa leen di traité loolu yàlla na ca Sénégal ak am président bu ñemee loolu xam nga lu ma gëm man bala ñuy wax ay waxu France af dégg nga ñu ne sommet France Afrique ca tur wa rek xeeb na mhm. nan la France di tooge dans l'arrogance di woo Afrique ñu ñëw fekk si ko man li ma doon naa comprendre ñu ne Afrique Europe <coughs> mais France Afrique tur wa rek boo ko déggee xam ne ñun suñu président yi dese nañoo gëm seen bopp man est-ce que yaakaar nga ne Sénégal mën naa toog fii ni sommet Sénégal Europe waxuma la Sénégal nu nit ñi te dañ naan kii daa dof wala léegi ñun buñ dee dañ ñun ay état indépendant lañ dañoo am suñu souveraineté mais nit ki mu ëpp ëppale la du tee mu weg la c'est parce que moo la ëppale que du la weg da jox sa cër mais nag yow yaay taxaw taxawaay mu jox la sa cër ñun Sénégal yàlla dafa wàccoog ñun ci lépp jox ñu alal jox ñu lépp jox ñu lépp luy xeeti mbell lépp luy meññ Sénégal am na ko am géej am suuf su baax suy meññ loo xam loo fa jur mu sax waaye loolu buñ ko amee ba pare danoo manqué ay njiit yu baax xam nga Sénégal luñ soxla tànn njiit yu baax yoo xam dinañ taxaw ci seen i intérêt parce que ñii fi nekk man li ma gëm dañ leen a war a traduire euh, euh, pour dañ leen a war a euh, porter plainte pour haute trahison parce que dañoo trahir askan wi nekkuñu fi pour intérêt askan wi waaye seen intérêt leen tax a jóg ak intérêt tubaab yi leen fi teg yi leen di jàppale pour ñu ñëw falu kon nag man li ma gëm mooy ñun buñ ñu teree dem France sant yàlla man de ba ma ba ma dee tëdd ñu woo ma bërkat démb ni ma yow Dame Mbodj yaa ngi ci liste bi dootoo dem France ma leen d'abord man sax bu ma ko waxee na bett ñëpp man dem naa réew yu am doole fu ne ah, mais dara man dama lay damay nette anecdote man ah. dem naa ci réew mu ne dem naa États-Unis demati fa dem naa Angleterre demati fa dem naa Danemark demati fa dem naa ci réew yu am doole yu bari mais France sama dernier voyage may dem Danemark dañ ma dama dem di jënd billet ñu ne ma léegi booy jël bi euh, boo jaar mën nga jaaree par Paris mën nga def Dakar Paris euh, Copenhague am nañ boobu am nañ tamit Dakar euh, Bruxelles Copenhague mais bii moo gën a moo gën a yomb bu Bruxelles man leen xam nga lu ma leen di xamal man jaaruma France man France mosuma faa dem. te bëgguma faa dem moo tax bi ma ci boolee damaa sant yàlla parce que man bëggumaa dem France beneen mooy ñun réewum góor jigéen. réew moo xam ni euh, comme ni ko am na benn man bu ñu ma nett li boo xam dafaa demoon di faju bi mu ñibbisee daa fay baru julleem yëpp parce que nee dañuy réew nii na mu fa julli dara <laughs> réew mel noonu ko teree man du ma yàlla moo tax man fi nii man xolal mere ma mere ma parce que damay xeex góor jigéen ba nga bind ma ni ma du ma sa réew mais wax dëgg yàlla man yàlla ma yàlla gërëm rek yàlla yàlla na yàlla ci loolu man kay li may ñaan mooy ñun ñooñ ci lim am na moo tax ay sénégalais yu ma wax tey ni ma dàmbuj ay eh, waay waay nu may def ba bokk ci liste bi parce que seen liste boobu dama leen a ñee moo tax ñun ñu ngi sant yàlla ci leen ñu boole ci liste bi mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo fes ci Sénégal di xeex góor jigéen ñun loolu la ñu bind ci liste ñu ciy profité rek leen wax na ñun suñuy mag moom dañ leen respecté bu ñuy wax nañ ormal suñuy kilifa ndax te ñooñ duñ seen moroom sëñ Mbaye Sy Mansour du seen moroom xalif général de de de xaar du seen moroom xalif général de Ndiassane du seen moroom ñooñu ay nitu yàlla lañ ñooñu seen jëmm ji rek yërmande la comme ni ma koy waxee toujours suma demee Touba ci sëñ Mountakha ne ko yow sa jëmm ji rek yërmande la pour sénégalais yi ak àdduna bi kon nag ñun dañoo bëgg loolu mu leer maintenant nag ñun sénégalais yi dafa am ñoo xam ne dem France dañ koo teg lu am importance mais ñun faale faalewun dem France France bu ñu wàccoon lan xam nga France wàcc ñu mooy ñu bàyyi ñu demal suñu bopp mm. ñu am président yu gëm seen bopp sunu alal yi ci réew mi ñu bàyyi koo di yóbbu seen réew di bàyyee not suñu économie di bàyyi di di di li leen neex ci suñuy réew comme réew mel ni ñun ak Mali ak yu mel ni ñoom l'Afrique francophone suñu demoon ba gëm suñu bopp am dirigeant yu baax léegi France mooy daw di ñëw fii ñoom français ñoom ñooy ñoom ñooy daw di ñëw Sénégal donc euh, nee na ci loolu li ma ciy tont ah, pour dëggal la li ma ciy tont pour dëggal la eh, waa ci tënk rek information la rek pour dëggal la rek parce que loolu aussi li ngay wax pour kon ne am na ñu ko wax kii élève bi daf ko envoyé Ndaraame Escale la yore la nekk CM Matar Kala Dramé dañoo dajale élèves yi defal leen formation sur l'égalité des genres jox leen document bi nii boo xoolee document bi da ngay gis ni presque ñi ko sponsoré ci kaw yépp ay société internationale lañ moom lañ leen jox te booy bi nee na avant ce son les professeurs qui ont été formés sur l'égalité des genres après ñu jëlee les membres du gouvernement scolaire en Dramé Escale formé leen merci beaucoup donc nee euh, li mu wax nii day dëggal li ma doon sànq donc pour leeral ñu ñun ànd sàmm jikko du ñu dellu ginnaaw loolu ñoom LGBT France yi def muy góor jigéenu France yi dajaloo ni léegi nan wut ab liste ñii buñ duggati France ñun ñun doyal nañ sëkk léegi nag sénégalais yi dañoo war a fexe ba ñoom ñëpp ñu bokk ci ñaan ëllëg bokk ci yërmande yàlla subhaanahu wa taala mooy lan taxaw teem jàppale ànd sàmm jikko yi ñu teg projet de loi bi ci table président assemblée nationale mu defal ñu la criminalisation mu mu vote ñu voteel ñu la criminalisation de l'homosexualité bu ko defee ñun Sénégal yàlla kontaan ci ñun te damay wax ni nga toog ci sam réew di diñee ko fande wala ngay añee euh, euh, euh, ngay aña laax di réere fonde ak di lekk sumbi ak di muñ ak di woor di nekk ci jafe-jafe te yàlla subhaanahu wa taala gërëm la ndax suñu dund gii jeex na ba noppi ak ne mu gàtte moo gën fuuf ngay ànd ak i franc maçon ak ay homosexuel ñu lay financé ngay guutaandaat te xam ne dee yàggul te boo demee yàlla yàlla yàlla mbugal la kon nag man dama gëm ni sénégalais yi nañam fulla fulla la laaj situation bi nekk ak taxawaay gëm suñu bopp suñuy njiit suñu mënta fekk si ñu ci li ñu bëgg mooy aar suñu askan aar suñu njaboot fexe ba ngóor jigéen bañ a law Sénégal ñu voté une loi bu koy tere suñ ko mënul ñu jàmmarloo ak ñoom ci ci ci ci dal ak pacifisme ñu abal ñu sunum réew ñu jox ko ñoo xam ne pare nañ pour jiite ko ci sunu ñun ni ko bëggee mais kenn mënu fee nekk di ñu imposer loo xam ne ay tubaab ñoo la ko imposer kon li ñu gëm mooy sunu réew song nañ ko réew mi fi mu toll ni mi ngi en danger parce que ay ndawam lañ song bëgg leen def ay góor jigéen loolu nag bu ëllëgee li liñ koy waxee soxna nee na daan mujjee puso bi mu réer te mu jëbu pusab mu réer musiba la ci ñun kon nag taxawaayu ànd sàmm ji koy ñëpp ko war a rafetlu ñépp ci war a ànd ñépp a war a ñëw taxaw te bu ñu wooteetee parce que mbir mi tamit des fois dama naan euh, du rek ñu nekk au pouvoir parce que gis naa ay opposants yoo xam ne ñemuñ cee fës gis naa ay opposants yoo xam ne ñemewunoo fës ci xeex bi te fu ñu daan woote place de l'Obélisque dama leen di gis bii yoon gisuma leen te ñëpp a war a ñëw ñu taxaw ñu gis leen yow xam nga dañ fay daje des fois xam nga ne dañuy ñëw bu dee seen intérêt lii nag dañ jàpp ni intérêt bu ñu mën a wut bi ko kon nag lobby góor jigéen yi nii ragal pour jàpp ne ñoom mën nañoo jot ci réew mi ci ñooñ ñoo leen ko yàlla subhaanahu wa taala mooy fale nañ gëm yàlla gëm ni ku falu yàlla la fal kon nag man jàpp naa ne bu ñu fi nekkee di euh, di tappale ak di jéem a def ay calcul naan bu ma ci fesee góor jigéen ñi bu ñu ma xeexee du ma mën a jot ci nguur gi kooku ñu ngi nax seen bopp kon président Macky Sall moo waroon a jiite foofa mm-hmm. beneen bi mooy presse bi aussi nañu xam ni seen liggéey rek la ñuy def bu ñu amee manifestation bu mel noonu na ñëpp ñëw def ko direct wane ne Sénégal àndu ci bu ko defee ñëpp àndandoo ñu xeex góor ba nga xam ne ñoom dootuñu ñemee taxaw fi ci mbedd mi article 18 euh, boobu ci code la presse ñu dindi ko. ma liral la ko le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine. Éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe son orientation.